moy li ko ma jambal jaay li ñu def baa jaxat li ko dal bu la waxal lim wax yow journaliste nga bind kan nga du xeyal bind li baa jaxate wax da ngeen xam rew mi reewal do ci dox katana nga koy saaga doomu jambo diko ko sosal doomu jambo di dulal doomu jàmbur yoo xam ne bu neul la ana projet doo wane dara yow nak sara saarata gis man la yow nga taxaw saaga Ousmane Sonko saarata bu mam mbay ya yaa taxaw fa fa face sept TV la xuma déedéet Sénégal kat xaw dañ ma baal directement ñu jël la nga saaga président Ousmane Sonko saara dégg ngeen ko de yéen ñëpp ko dégg waaye moom dafa amati mbokk bàyyam dund yaayam moo tax muy dugg ci garaawaale yi jigéen góor ñi di ko nax di ko dugg ci garaawaale yi ba pare denc seen i doom denc seen jëm waaye nag saara yow bëggoon naa xam kuy sa nijaay mu mu yar la téye la parce que kàmb gii ngay gas nii boo ci duggee du parce que jigéen nga nguur ngeen yoroon daanoona muñ leen seen réewane gi ngeen teg ko ci suuf Aliou Sow yow Aliou Sow nga tudd ko ma yaa daa ko ñëpp nga ne Ousmane Sonko activé lii moo yey moo yey Diop tay daaroobu miir vidéo ko ñu jàpp ko tëj asara wax ngeen jàpp ko tëj mille cinq cent nangam personne tëj ngeen leen seen nguur nga wee daara ngeen ay dictature ñun ngeen ñàkk nguur bëgg ko ne di dictateur bi di teg dictateur ci kaw nit ñi dañ leen di ñuus ngeen duul ma jàmbal boo ñu nee am fit sa nooneel bu yàgg sa mbañal bu yàgg Ousmane Sonko waxal li Bah Diakhaté wax yéen mbokki Bah Diakhaté bëggu leen Bah Diakhaté kenn bëgg ko ci ndax nit boo àndee moom moo wax lu dëgg lu yoon da nga naan ko yaa nekk ci dëgg yaa tooñ mais doo taxaw fee di yokk ay duul yi taxaw ci buntu bay duul di sos di fen diko gëna duggal ci problème ba jara li mu wax amul kenn ku ko ñëmé taxaw wax ci yeen ñu jappalé ba jara gën leen wax ko nit boy and ak mom da ngeen and ci dëgg su toñé nga nako yaa toñ su nekk dëgg ci dëgg nga taxaw jappalé ba jaxat li mu wax ku ko waxon sa bay ci yeen ñi da nga xex bëkk dem fi nga taxaw duulal Macky Sall tang tang bi da la wo di yow andu Sow te bobu Macky Sall wacc na wonan la fi barki dem bàyyi leen bii ak sos da ngeen a sos sos ba seen ko daan lii du jàll affaire reewante la lii du opposant booy opposé wu da ngay indi say argument buñ na nga daal ñuul buñ daal weex loolu sañ ko mais nag dafa loo xam ne jaadu rëpitu kuñ ko wax sa bàyyi nga mer kuñ ko wax sa mag nga mer kuñ ko wax sa rak nga mer yow ma ko baa jaxate fo ma rak ko baa jaxate nee nga laay bër la yow xamuñu ko yaa na ko wax kenn mësulaa gis lii baa wax wax ko wax ko yow Sarata nag taxaw nga saaga Ousmane Sonko yow Sarata yaa taxaw saaga Ousmane Sonko ñëpp di la seetaan yow Sarata yaa saaga Ousmane Sonko loo ci góobee ngar ko rek loo ci góobee rek yow ngar dégg nga dangaa réew Mame Mbaye Niang mii sa baay ah ñi mu Ousmane Sonko waaw ñi xam na ko Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang sa baay ba Ousmane Sonko doo jàpp fukki dërëm ak léegi taxul di laaj xaalisam na reewaane dana fi jóg de laa ilaha illa maaraa maaraaj bi maaraaj bi ab maaraaj la xam ma xaw ma nan ndaw man sax li ñu wax si ma waaye xam naa ne daal dulkat bu bees la moom maaraaj xaw na nan ndaw dulkat bu bees la dinaa leen ko tafal fii kii ko xool ak kanamam kii ngeen xam ne moom juddoo la tàmbali tuuti dulkat bu wax ji daal la ko guddal mooy leen ko gàttal ma jàmbal jaay li ñu def baa jaxat li ko daal bu la mettee waxal li mu wax